nit ki su tëddee dafa baax ci moom muy tëddee ndeyjoor loolu ñu bëri di tëddee càmmooñ day waral néew kàttan parce que l'islam lépp lu mu la sant rek soo ko wattee wa wàccee rek da ngay gis conséquences yi nga xam ne moom mooy présenté wu ci yow foo fekk kuy tëddee càmmooñ lu jëkk mukk ci néew kàttanu sëy te it pour mu am doom bu barke dana jafe ci moom te it doom du góor dana ko jafe kuy tëddee càmmooñ moom doom ju du ko yomb néew kat kattanu sëy bu sax du ko yomb wér-gu-yaram du ko yomb it xel mu ñaw du ko yomb parce que programme bi yàlla programmé doomu aadama daf ko def ci waxtu wi nga xamee ne ci lay reposé waxtu woowu dafay baat jaadu mu tëddee wàllu ndeyjoor su tëddee wàllu ndeyjoor ci la ay ay waaritam di ñëw ci la ay mayam di ñëw ci la santeem di ñëw ci la yooyu yëpp di ñëw ñu bàyyi ci xel te tamit loolu secret Euh, c'est c'est c'est pas donné à n'importe qui mais maa ko def pour nit ñu xam ko ba ci de ba ci nit ki bu dee sax da ngay gis bëggee am connexion ak yàlla sax da ngay gis ñu tëral ko tëralee ko wàllu ndeyjoor mu janu jon ak penku bi loolu yëpp ñu bàyyi ci xel ñu xam ne ndeyjoor ci la nit war tëdd suy tëdd ak soxnaam lu ëpp ci booy tëdd soo demee ba tëddaay ndeyjoor bi métti ci yow nga jaaxaan waaye bul tëddee mukk càmmoñ te tamit ci wàllu santé ci science sax soo xoolee tëddee càmmooy baaxul ndax boo tëddee càmmooy sa xol bi day féete kaw te bu féetee kaw euh, euh, euh, du kii boo boo tëddee càmmooy sa xol bi day féetee suuf te loolu da ngay tëdd ci kaw xol bi bu boobaa da ngay gis ne loolu dañ sant sax science sax nanguwul loolu moo tax loolu conseiller la boo xam ne dañu koy fàttaliwaale nit ñi pour bëgg am kattanu sëy doo boo gisee mag ñi daan tëdd daan am ay quatre-vingt-dix ans daaw jàmmat ay ñàkk ñàkk kàttan ci sëy ba léegi ñi tëddee ndeyjoor amuñu problème mu sëy dañuy sëy duñu am problème éjaculation précoce duñu am yooyu détail yooyu duñu ko am parce que même seytaane sax su fekkee daf la bëgg dugg fekk la nga tëddee ndeyjoor sax waxuma du la dugg de mais dina am jafe-jafe bu mu rëy pour dugg la moo tax nañ ci bàyyi xel tamit di tëddee njàpp dafay tax yooyu gàllankoor feebar yooyu du la dal di tëddee njàpp booy tëdd nga jàpp soo ko tëdd